ñu dore ko ak Boubacar Camara mi sàkku rekk ngir rekk ñu daal di reporter élection yi ba yeneen jëmmi jamono ñu dem xooli ko daal di dellusi. waaw maa ngi leen di nuyu bi may def live alxamis bi passé laa ne ci réew mi toll. Mhm. yenootul maanaa ñu tànk xam lu waxtaanee toxal élection bi ci yëgu. wax ko moo fi ne. ak bañ ko wax noppiwaale ko. waaye ñëpp xam nañ ne Sénégal dal bu tax. ñu mën a jëm ci jongante yu set fi ma ko teg nag benn bi mooy boo jëlee rek acc yi nga xam ne tegu na ci ndoddu Ousmane Sonko te benn sotteegu ñii tëdd ci kaso bi Sénégal ak ni ñu toll mer yi nga xam ne nit ñi guux nañ ko te giifagul ku ne lakk sa jalu xeer tey tëkku hmm. condition yooyu boo ci buggee organiser élection si ñetti weer yi ci musiba nga jëm ñàkk wóolu wante bi nga xam ne ñaay mooy ñaareel bi ñàkk wóolu wante bi laxasu ci jongante ci processus électoral bi ci affaire u parrainage yi ci processus ku lépp kenn wóoluwul sa morom teg ci nag jafe-jafe yi nga xam ne yu tar yi yokk yi Sénégal ndóol bi ci nekk ñàkk karange beeg mbëkk ni kenn wóoluwul sa morom école bi ndërmeelu gis nga li fi xewoon conséquence su événement yi yëpp université beeg tout kenn du tabax réew ci fitna mhm. kenn du jëm ci jongante tànk xadar yi jiiful wóolu woon te amul ñu tëjjaat arf leeral lépp lu ci aj mhm. ñun loolu lañu gis ni moom mooy situation Sénégal. d'accord porté ko nag mën na jur loo xam ne lii dinañ ko rëcc ñun ñëpp. ñu jërëjëfal ko moom Modou Diouf alaaji dégg nga Boubacar euh, Camara li nga xamante ne ni mooy ay raisons yu mu évoqué yu waral ñu mën a reporté yi les élections est jàpp nga ni yow euh, Sénégal ñàkk na dal dal boo xamante ne ni report élection war na fi mën am. waaw Boubacar Camara ñu ngi koy nuyu de mu nekk nit koo xamante ni euh, nit ku dal la mm-hmm. aussi mu nekk nit koo xamante ni bokk na ci ñi nga xam ni man naw naa leen ci réew mi mm-hmm. ci seeni xalaat ak seeni doxalin mu nekk koo xamante ni bii tamit wane na depuis quelque temps que ni euh, Sénégal moom euh, ñor na ko mm-hmm. li wax nag bon Euh, am na nu mu ko lay taayale maanaam jamono ji nga xamante ni moom lañ toll nii ku jàpp ni réew mi am na dal moom am na jàmm pour man xamoo li xew parce que man jàpp naa ni réew mi mu ngi ci tension boo xamante ni bii moom bu doy waar la réew mi nekk ci jamono jiñ toll nii. ndax loolu nag raison la pour ñu pousse élection yi walla du raison loolu leneen la maanaam nit la ko joxe xalaatam ci pénc mi joxe ay gis-gisam mais man dama jàpp ni man sama gis-gis que ni élection yi même bu ñu ko poussé tension bi du fi jóge parce que dañoo awut yoonu ngir régler problème bi te it pareen saay politicien professionnel yi man duma ma leen wóolu maanaam moom bu fekkee ne mi ngi wóolu politicien professionnel yi man duma leen wóolu mën nañ jubook yow ci waxtaanee mbir mi comme li Boubacar Camara wax ni nga xam ni man jàpp naa ni bonne foi la ko waxee da ko wax rek ngir jàmmi réew mi mais kan ngay wóolu ndax ki ngay toogal di waxtaan lim lay wax dina la doy foofu la réew mi toll. réew mi dafa toll foo xam ne fii tey ma jigéen maanaam wuulu nit yombatul parce que dafa am ay jalgati yu bari yoo xamante ni bii gis nañ ko ay nit ñu jege woon nit ndax fi mu toll nii ñi nekk ak usmaan Sonko mën nañoo wóolooti kenn ci classe politique professionnelle mm-hmm. ak ni ñu doxalee kon donc waxtaan woowu pour mu ne du yomb parce que pour mu ne faaw ñu joxante confiance te loolu li war a tax linkale leen pour ñu joxante confiance maanaam dañu amatul sax ñu ko médiation bi ñu ko war a mën a dox parce que tey bu njëkk ba sëriñ si la woon te tey jii fi mu toll nii sëriñ si ku ci ne am na fu ñu la dëkkale maanaam situation dëkk bi tey pour ñu toog waxtaanee ay mbir yombul yombul pour man lan mooy solution mooy ñu dem ci élection yi man damaa gis ni élection yi dañ ci war a dem li ñu war a négocier mooy lenn mooy na nit ñëpp dem parce que pour ñu am élection yu leer fii ci dëkk bi faaw ki nga xamante ni ki mooy usmaan Sonko dana ci bokk parce que loolu rek gis nga usmaan Sonko fenn rek nga ko mën a gañe nit ñi nangu ni gañe nga ko fa bu fekkente ni bi gañe nga ko fa mooy nga bàyyi ko mu dem ci ay élection mais boo ko bàyyiwut mu dem ci ay élection ba noppi nga jàpp ni kay ñëw ëllëg mën na doxal gëwuma lool mën na indi ay jafe-jafe jàpp naa ni foofu lay ragal sax Sénégal tàbbi fa parce que Boubacar Camara kenn la ci rares politiciens yi nga xam ne nangul nañ seen wujj li ko sunu borom may moom nangul na Ousmane Sonko li ko yàlla may boo gisee sax problème bi mu teg yëpp mooy problème Ousmane Sonko la teg wax ni élection mënta nekk donc loolu li mu la wax mooy daf la bëgg a wan ne la élection mënta nekk sans Ousmane Sonko donc loolu mooy li wax ji di firi bu li muy wax ne nañ ko puus toog waxtaanee ko procès Ousmane Sonko yi loolu dafa lay wan ne la il faut que ñu fexe ba ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko bokk ci élection yi loolu mooy li nga xam la ñu gëm parce que koo si dégg muy wax rek daf ne nañu ko delloo euh, radiation bi nga xamante ne ni def nañ ko nañ ko delloo si liste yi ku ci mel ni Aly Ngouille Ndiaye dégg nañ mu wax ko est-ce que ñoom ñëpp réellement li ñuy wax loolu la ñu moo moo nekk lu nga xam ne gëm nañ ko. waaw mais xam nga gëm ko ak bañ koo gëm xam nga pareen saay surtout la day wax ma surtout la def ne nit ki wax moom bul seet mooy kan ak fu mu bokk mais seetal li mu wax rek lan la. tey jii delloo Ousmane Sonko mu mën a nekk candidat képp ku bëgg réew mi te réew mi yitteel la te muy dëgg ci yow war nga xam ne lii mooy li nga xamante ni bi wax dëgg fa yàlla bokk na ci senegal li nga xam ne muy tàmbali am jàmm loolu war nga ko def léegi nag bu ñu demee ci ay élection nga dem ak moom ci ay élection nga gañe ko nit ñi xam ne dem kenn élection gañe na ko bu boobaa moom mu mën a yëkkati téléphone félicité la su fekkente ni moom moo gagné nga mën a yëkkati sa téléphone félicité ko xam nga bu ko defee Sénégal <coughs> amoon na fi ay guddi yu bari yoo xam ne jàppoon nañ ni bët du set pourtant bët set na ba nit ñi tàccu mais loolu ay nit ñu mag ñoom ñoo ko def ak luñ leen mën a waxal fexe nañ ba joxe lengee yi ci ak dal Abdou Diouf def na ko jox Ablaye Wade Abdoulaye Wade def na ko jox ko ki nga xamante ni kii moom lay wax président Macky président Macky Sall nag amoon bi gën <coughs> boo xam ne moom du bokk sax far ci ay élection warta jéem a galgal kenn mooy ki nga xamante ni ki tey moo waroon a am mujj bi gën a rafet parce que xam nga lu tax mhm. Sénégal jox na la ko ñaari yoon bii yoon mënoo bokk ñu ne la ah yow mi nga xamante ni bi de mënoo bokk waaye yow yaay ki nga xam ne yaay organiser élection yi nga organiser élection yu leer yoo xamante ni bii tey amut lan lu ci lëndam nga pare joxe li nga xamante ni bii mooy lenge yi Sénégal danañ la tàccu xamal la ne la li nga def de lii rek la yow yaa fi def lu kenn mësta def parce que gañe nga ñaari yoon te Sénégal yow folliwuñu la waaye dafa dem ba mënatoo laaj loolu lu ko gën a neex ku kenn gañewul gañe ñaari yoon te kenn gañewu la ndam loolu doyut donc jàpp naa ni président Macky Sall foofu la waroon a xëcc mais gis nga élection yi bés bu ñu ko poussé tension day gën a continuer di fi ne maanaam am na ñu bari ñoo xam ne jàpp nañu espoir bi yëpp coow li coow li ay weer a leen dese pour ñu génn ci élection yi maa ngi fàttaliku euh, élection 2012 bi nga xamante ni bi affaire bi dafa tàngoon ba gars yi naan élection yi est que duñ may Ablaye wàdd trois ans pour mu yeggale chantier mi Sidy Lamine njëkk taxaw fi bañ Obasanjo ñëw fi muy ex président Nigéria ñaan loolu la ñuy négocier Sidy Lamine ne loolu mënta ne kii putschiste la mënta ñëw di ñu jàngal démocratie Sénégal dëkk la boo xamante ni bii jaar na ci ay alternance xam nañ ay élection yàgg nañ koo def mu nekk kàddu yoo xamante ni kàddu yu am solo la te ba ñu defee la ñu war a def président Macky Abdoulaye Wade woon na ko félicité ko ba noppi jox ko li nga xamante ne bi mooy lengee la mu waxoon mu def ko du ma def lu gën a yées li Abdou Diouf def donc loolu mooy li nga xamante ne bi foofu la ñuy woo président Macky Sall ngir mu wuyu si fa sénégalais yi mm.